bismi lillaahi fiinin adaala yàllaawum safi baqa abin bifika yàllaawum yaa man lawool amru yaa man laa sharika lahu wasi wa ma lil waad lifika yàllaawum وجاتك اليوم يا رمان منتجيا فوزي بما ستوسي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي الدر رن منك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 خدست سريا يا قدوس منتليا عني وعن كردي تدارح يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي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 برور الكل يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والثري والرلوان يا الله waaye ñëpp a ngi nekk kenn desul waa Kër Saalum gépp teew nañu ñu daal seen cant ñu daal seen i seere ñu daal seen i nuyoo xam ne li nga def day moom bëgg leen di ba tax a ñu joxe ndigal rek dinañ joxal ndimbal ndigal nag tàmm nañ ko ñaanal rek ñoo ñaan ci barke mag yi alhamdulilah rabbil alamin noo ko bëggee rek defe ko jàpp ndigal li lool yàgg ko yàgg ko jëfe lool lii lu rëy lu rëy ci Kase Rafaal la sëñ Tuubaa mu a Kase Rafaal dafa nu ñëpp dafa tëdd kenn wutoon toogal ndax kàddu yi kàddu yi néew la ndax taali moom dañuy wax ne ci diggam ak sëriñam daa a sang ya bu ñu gisee kàddu day mel ni Baye Fall monsieur Moussa Bassirou Nawel noo ngi lay siyaare baax yi nga joxe yi nga joxal sëñ bi bëgg nañ ci lool xam naa bëgg noo indi li mu la tax mu ñëw dafa mënu ko yónnee dama ko xam ne bëtam yi xool bëtam yërmande yéen ñëpp xool ci la soog defaroo yu ne loolu dama ñaan saa borom mu dimbali nu ci barkeem di dool nu yërmande dool nu njëkkal dool fi ak mucc te xewal ko ba liggéeyal bu baax baax baax su xool daal la seetlu du mën a wax tey ndax lii moom dina ko mujj moom daal mën a am jommal jommal ko parce que daan bàkke baax ma kat neewoon na sin bu ko defalee loo mën bu defee loo mënul su ko defee loo mënul ko jom waaye du ko lii na am jamono tey jamono daan ko am déet te liggéey bi ñu tàmbali ak adugut borom ñëw fa seet si ko ñeel ay gërëm di ko jël loolu moom ba nga xam ne lépp ñu ñëw yàlla suñu borom kat du ma ci wax sax waaye yëg gi daal la bëgg yëg yi ndax mën na ko jaamu ko yokk ko dara mën na ko muy wàññi ko dara waaye yëg doole ci lañu dimbale yow yëg yi nga indal nag kon ci la dimbal Baye Fall yëpp nekk tey kon ñaan ci sa borom dugal tey dama ci kaw suuf di jullit rawatina nga dem murid yaakaar sa Baye Fall te àdduna ak àllaaxira ni ñu ko defoon tey ñu ko defoon tey dara da nga ndawal yàlla mu fi yebal nga ñëw tey sant man baax daal te ma jur baax wa ma ma jóge tey bu fekkee gis dara na lépp jeex tàkk tàkk tàkk sëñ Tuubaa bi nga xam ne moo doon war rek cant suñu borom sant ko yàlla yàlla yóbbu murid yëpp ak yëpp kon dañu leen sant ko nu mu ko bëggoon defoon ba ko yeetam làq seen gërëm ndax sant nañu yàlla bu baax ndax ragalul corona bi bëgguñu Macky Sall yow la yow la bëgg yaa ragal yàlla yàlla ki la sëñ Tuubaa bëgg kon bu nu waree ragal yow nga war a ragal bu nu waree bëgg yow nga war a bëgg ku ne yow leen bëgg yow leen sopp yow leen yaakaar kon nag nu ngi ñaan nga yàgg fi lool mu yàgg lool te wér li nga naanal sa wajur bu baax la ko sa maam ji lépp nga àggale ko kenn ñu la ko àggaleel ànd ko ñu ko bëgg àggal àndal ñëpp parce que ba baax parce que seen baax san noonu baax Mbàkke san noonu baax sëriñ bi dafa wax ne ay kàddoom dana gàtt lool mu ne dafa sant si sant suñ borom bu baax a baax ne Baye mu ne maanaam buñ nee Baye Fall. te Baye Fall di dëgg ci moom. te Baye Fall di dëgg ci moom. damay daal di gënal bopp man. mu ne daf koy gënal boppam moom mii Serigne. ngir jëmmi Serigne Touba. man ma xam ne rek moo xam ne rek moo nekk ci xolam. Mm, mu ne loolu rek mooy ekkandoo. dégg na dégg na wax bu baax. mu ne Serigne bi Serigne bi neen dégg na kàddu yi bu baax a baax. mu ne li nga ci fas yëpp noonee rek lay amee nag. mu ne moom sëñ Bass mi lépp ci moom rek la ko jaarale woon. waaw. ñu tax ñu tax ci digg bi. waaw li ko fee li ma ko mbéy li ma ko mbéy bàyyi bas xool. boo demee ci kër ga. bu xalaatee lu muy lu muy def lu. moo ko baal mu ñëw mu xam ne fii fii lay wax. bu ñu jógee ci kër ga loolu moo ci des. déglu leen nag. ndigalul sëriñ bi sëñ Ndiaye kàddu ndax bàjjen wax rek yu bàjjen lépp moom sëriñ Abdou Khadir nee na jataay bii day jataayu mbóot de di jataayu Pastef ndax ku nekk xam na diggante sëriñ bi ak taalibeem ba maam Cheikh Ibrahima Fall nee na kon nag jataay bii bu sëriñ Touba yëkkati ay jéegoom ñëw ngir xool fi mu toll ni ko sëriñ Moussa Mbacke waxe léegi néew na sëriñ Touba jug di seet si liggéey bu eggagul waaye seen yitte ak seen pasteef ak seenu taxawaay ak barab bii ni mu demee nee ndax lépp day wane mbirum sëriñ bi rek ndax nëgëni si daaw la fi sëriñ bi ñëwoon de ku nekk xam na li fi nekkoon waaye sëriñ Touba nee lu mu bëgg sunu borom da ko cay fekk si de ndax warul woon mën a gaawi ni mu gaawi nee na kon ku fi ñëw ba gis li fi sëriñ bi naan te sant leen ko ak pastef bi ngeen ci doxe sëriñ bi nee na mi ngi leen di sant bu baax di tàmbalee cant gi nag ci sëriñ Cheikh Jëmb Fall nga xam ne mooy kilifa njaboot yëpp di ko ñaanal bu baax mu gën fay yàgg yàgg koo wéttili ci liggéeyu sëriñ Tuubaa bii mu ne yéen ñii topp ci ginnaaw Serigne Cheikh Jëmb Fall te ñëw fi teewal ko fi Serigne baa ngi leen di sant bu baax ak njaboot yëpp ni ko Serigne Falilou Fall waxee léegi rek yóbbaale na kàddu yëpp kon nag jataay bi daanaka du jataayu wax de ndax jëf mëntu ànd ak i wax te yéen de ku ne xam na ni jëf lañ leen xame de waaye xamewul leen ay wax nee na kon nag sant rek moo ci war ndax la seex Abdoul Ahad Mbacké waxoon rek dafa waxoon ni kër Serigne Touba dafa am bañ kër Cheikh Ibrahima Fall am bañ nee na kër Serigne Touba mbañam mooy ñàkk a joxe ndigal mooy ñàkk a joxe ndigal kër Cheikh Ibrahima Fall mbañam mooy ñàkk a jëfe ndigal kon nag jataay bii dëggal na ni loolu daje na ci kon nee kon li ci des moo di sant rek ñaanal sëriñ bi mu yàgg fi lool te li mu bëgg a liggéeyal sëriñ Touba mu àgg na mu ko bëggee rek ndax moom amul benn yitte soxlawul dara ci àdduna lu may liggéeyal sëriñ Touba ak bëgg ñëpp dox ci pësteef di ko sellal ngir jëmmi sëriñ bi nee kon nag na seenum xel daal bu baax bu yëkkatee jéegoom yi ba agsi fii. bu yëkkatee jéegoom yi ba agsi fii. lam leen fasal. lam ñu fasal. mooy li gën ci ñun. mooy li ndax sëriñ bi kat. mas naa liggéeyloo taalibe yi. mas naa liggéey loo taalibe yi. te njaareem. ba noppee mu wax Cheikh Ibrahima Fati ni ko. ba noppee mu wax Cheikh Ibrahima Fati ni ko. damaa bëgg ngeen ngeen fas li ngeen bëgg. damaa bëgg ngeen fas li ngeen bëgg. Cheikh Ibrahima Fati ni ko nañ bàyyi nga fasal ñu. Cheikh Ibrahima Fati ni ko nan bàyyi nga fasal ñu. ndax ñun bu ñu fasee dana am luy fàtte. ndax ñun buñ fasee dina am lu nu fàtte. kon nag sëriñ bi nanu fasal rek fasaale taali bi yëpp li nu bëgg lépp ñu am ko li nu ragal lépp it ñu mucc ci te lépp nag mi nga aju ci topp ci am rek déggal ko bañ koo jiitu ci lenn te xam ne loolu mooy sunu njariñ adduna ak àllaaxira kon nee na ñu yemale foofu kàddu yi nee na sëriñ Fallu li nga ñaan ci màggalu sëriñ Tuubaa gi. fekkoon nga ci sëriñ bi. fekkoon nga ci sëriñ bi. ndax ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na. nee ba mu joxee ndigal ci màggal gi yàgg na. te amu ci benn xalaat. mosu ci benn xalaat. mosu ci amit benn xalaat. lu dul ko fekke lu dul nam ko fekke woon. mu wëyee ko noonee rek. ndax nee na ñaar rek moo ko fi bàyyi. wattu ak sàmm. kon nag bis bi. ni ko sëriñ bi bëgg woon rek. njabootam gépp itam. njabootam gépp itam. wéyal ko ba mu egsi fii. ko ba mu fii. benn xalaat mënu ci benn xalaat mënu cee am de. lu weesu noonu kon loolu na ci seenu xel daal. nee na ñu jeexale ko rek ci. sëriñ bi da koo yónni woon ci sëriñ Cheikh jëm. joxoon ko ndigal ci liggéey bi. ba nu agsee ci koor gi. mu yónniwaat ko. ni da koo jox ndigal. ndax ndogu yi ak liggéey bi mënee su koo boole ñaar yëpp danoo doon farata ta xam na ne bu nu bàyyi woon ñu boole ko de kon moo tax mu yebaloon ko ni ko ne leen yeewi ban jotaan ndigal lii kon nag nanu xam ni waxtu wun amee ak yaatu jotaan nanu ndigal ci tàmbali liggéey bii noonu lanu ko sëriñ bi sante wasalaamu aleykum wa rahmatulahi taala wa barakatuh sama xel jëkk a dem rek mooy yéen yéen a koy liggéey bi yéen a koy boo foofa daal yeesaloon ko Cheikh Bassirou nee na lii sëriñ bi wax nii liggéey bi ban ko seetee ba gis ko nee na Pastef bi mu ci amoon ay yéene ji mu ci amoon xam Pastefu Cheikh Ibrahima Fall xelam kenn nekku ci xam ni Cheikh Fall rekk man lii Mbàkke boo ko waxee des na ko gëm ndax diggante miir bi ak raay bi mu tudd juróomi meetar ba ko sa waajuru bëggee sëñ Modou Moussa Mbàkke waajuru sëñ Cheikh Jëmboo la ko santoon sëñ Modou Moussa Fall booba la gënoon a jafe at yan waxoon Cheikh Moussa Fall taxañ ne ko ànd ko mbooloo mi sëppeel ko fa ko sëñ Mourou Sambake bëgg ceeguñ ci limba ni ko El Hadj Ibrahima waxee liggéey bii Cheikh Moustapha Fall wax na ko bu dul benn du ñaar liggéey bu ne am na woote bu ne am na sëñ Cheikh Ndiaye Mbengue fekk ko sëriñ Saliou Fall fekk ko sëñ Cheikh Mbacke Fall fekk ko sëriñ Fallou fekk ko Cheikh Moustapha Fall Falilou fekk ko waaye ni lu fekk fii nga toog mustu am yoon amul tànk ginnaaw gëma nañ ko ci sa toogaay bii ak sëñ Cheikh jëm fa mu toog la toog lay jala fee ci feer man na ay gën a liggéey bi ciment bi dañ ko mujj delloo kon loolee ñu tàmbali woon moom la Alaaji Ibra jël wax nga ñaan ci doole Serigne Touba sa wa sa maam ja sa doole waajur Cheikh Bassirou Mbacké doole bàyyi ba Cheikh Mourou Sa Fall doole maamam ja Cheikh Ibrahima Fall saa borom bàyyi la fi bàyyi ko fi ban jox la caabi anta lay murasi أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أثاري ملاسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقلبي مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سريا يا قدوس متليا عني وعن كردي تدار يا الله أنت ترى ملاسي سلم تكن لي من ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلم تكن لي من ويوب نفسي بيتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابلي am na fi daarayni yaa allah wa bil mu'aymini lis abi istiraayka ma xabitu sirran ilal jamaati yaa allah anta al azizu lasi أطيب إيستي إذا يقال لدولد التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلا سي لاخترت يا الله